constitution bu république du Sénégal moo may président de la république mu nommé. ku ko neex mhm. moo ko may aussi mu dindi ku ko neex. waaye ni yëf yi tëddee maanaam relation humaine doxoon seen diggante ñoom ñaar foofu laay jëm si. voilà la ma jàpp ne maanaam président def na ko ci diggante boobu ci lu ko warut mooy warut tàggaloog nag euh, Alioune Badara Cissé keneen di ko ko wax ku moom. Mhm. ndax boobu dafa dem Makka Umra fa la dégg ne jëlee nañ ko ci gouvernement je crois que loolu Euh, ëpp jaarul seen loolu lu bees xëy nga ko yëgee loolu bu ko mënee bàyyi bàyyi. loolu lan la ci sa gis-gis froideur mhm. ah, kay xam naa ci dara yow tam nag. Mhm. très froid bon mais froideur man jàpp naa li Sénégal yi xaar ci moom du froideur li Sénégal yi xaar ci moom mooy xarañ ak jublu ci seen soxla. Mhm. loolu jàpp naa ne mooy li nga xam ne moom la Sénégal yi xaar ci moom kon encore une Euh, Aliou perte bu ngeen doon. xam nga man waaw ci Macky Sall sañ naa dindi ministre soog ñaafal mi. Mhm. mais dafa am côté leneen lu mu ca dolli daa xëy xëy dindi coordonnateur bi mu ko joxoon. kon mhm. te waxul nit ñi ba léegi waxul nit ñi lu tax mu dindi ko fa génne ko ci secrétariat exécutif maintenant après le recul booy xool loolay xew la nga cay jàngat. ci ngay mën a comprendre rek pourquoi Macky Sall se comporte de cette façon maanaam lu benn bu ko neexee Moustapha Diakhaté mu dàq ko ci parti bi te du ko jaarale ci yoon en réalité booba la feeñ le les les allures wala les élans despotiques de Macky Sall ci nu mu waaw foofu la foofu la feeñee xëy na sax jub moom mais foofu la feeñee malheureusement malheureusement Alliance pour la République ak surtout ñi nga xam ne ñun ñoo yoroon ñoo nekkoon ci responsable bi matuwaay yi jël jëluñu ko pour arrêter woon loolu parce que nag am na danga mhm. naan mooy mooy far direct mooy far direct euh, le coordinateur mhm. national wala son adjoint waaye nag nit ki boo koy dindi da nga koy xam la mu toog na effectivement il a dit dans une émission récemment que toog na ay ay bu yàgg. Mhm. mënul fexe ba gis ko ba wax ko lan la ko def. te man nag li ma ciy jot a forokus néew très franchement jàpp naa ne bokk na ci xëy na ay fumier yu nekk ci keppaaru. non wax na ko sax par exemple wax na na ko parce que nee li ñu ko tuumaaloon noonu relation ak benn drogué bi fi mu jógee ki ko wax ci biir parti bi la nekk. la même chose aussi waxoon tamit si ñu ko doon bi mu mel ne tey président Sall il est assez mal entouré ñoo xam ne xëy na seen i intérêt na la ñu koo xam ne xam ne moom tant que ña nekk. Mhm. Macky Sall dina ko jafe pour mu def lu baax digganteem ak parce que ñoom seen yitte am na ñoo xam ne seen seen yitte moo nekkoon tàggalee Macky Sall ak Aliou Badara Cissé te nag Aliou Badara Cissé faatu na bàyyi. mais tamit Macky nga baal ma ci wax ji kilifa gu mat la bu fekkee ne day dégg ci dara euh, daal di sévir te du déglu ki nga xam ne mooy principal mise en cause bi. bien sûr que loolu ko erreur la loolu du cëru kilifa kilifa boo jabootee nit. Mm-hmm. te nag xam nga Aliou Badara moom moo moo jàng téeméeri Macky mm-hmm. moo ko ëpp diplôme fuuf. gis nga même bi mu ànd ak moom. xam-xam bi sell na wax ji wax am na ñu mhm. a maîtriser. parce que jaar-jaar mhm. a mën a nangoo ñàkk ngu maanaam bàyyi nguuru nga xam ne Aliou Badara bàyyi la def Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade da ko doom mhm. mën na ko faa xam ne ci keppaaru a jot ci àdduna wër woon a tàggoog moom ni mu tàggoog moom. loolu mhm. rafetul. tey jii nii euh, ku mel ne Alioune Badara Cissé bëggoon naa xam euh, ak jikko yu rafet yi ñu koy seedeel ak lu baax li nga xam ne doon na ko jëf parce que bi mu génnee àdduna man je parle même pas yi nga xam ne mooy sa sa sa ñu mel ne yow wala pouvoir mais opposition unanimité bu mel nii nit est-ce que mën na ko am Sénégal léegi ku làmboo jikko yu mel noonu sa gis-gis lan moo tax ba mënta yàgg ak président Macky Sall te il n'est pas euh, mu leen fekk bàyyi leen fa mais à fois dañuy gis naan ñaari xàbban bu ñu naan ci euh, mbalka naan wa du jekk am na am na ñoo xam ne neexu ñoo nekkal parce que dañuy kilifa cest di dire yow yaay comprendre nooy ànd ak ñoom rek boo ko boo boo jàppee ne dañu laa war parce que ñi nga daan dégg ci biir parti bi ay saytaane yi yi ñuy fumier yi naan way Alioune Badara dafa respecté wu Macky Sall da ko tegul fenn Alioune Badara du sibaru Macky Sall naw leen bu ànd ak moom la sama rajo la c'est-à-dire buy wax ak moom. surtout li mu liggéey ci élection am aussi. dafa am man sama mhm. maanaam loolu sama Macky Sall di ko am na benn bis boobu ba war a nekk président la premier ministre. am benn nit bu ko doon doon woon naan ko Macky xam nga la mu ko wax daf ko gëstu ne ko faut du premier ministre. Mhm. boobu loolu sama Macky Sall di ko kon jox na ko cëram bi mu ko war a jox. waaye nag dafa am ñoo xam ne moom nekk nañ ci keppaaru Macky Sall xam na leen moom man xam naa leen ñeneen ñi xam nañ ne li ñu doon lijjanti rek mooy tàggale Aliou Badara Cissé ak Macky Sall tàggoo nañ faatu na yàlla na ko yàlla xanaa jënd ñoom li bëgg leen lañ bëgg lu yàlla nañ ko am. Ah,